asalaamaaleykum mbokk yéen ñu ñu suivre seen site internet lu tv point comme ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey vendredi 9 juin 2023 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak journal sunu lambu tey di ci ànd ak les arènes point com di ci ànd ak wiwe sport ñuy nuy ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Gambie yëpp waa Vice FM di nuyu di jëmoo di nuy auditeurs yëpp di nuyu suñu per Ndongo Cissé ah, suñu père Edou Diono waa Gambie yëpp yëpp ñu ngi leen bégge bu baax a baax di leen ziare. waaye nag di nuyu waa mbir kilaan fm di jëmo wala boog Babacar Sarr maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di nuyu waa mbir kilaan yëpp yëpp yëpp waa Saalum di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Abdou Dramé borom Saalum ak Gambie ñu ñëw ci journal bi nga xamante ne wala boog ci site bi nga xamante ne moom moo di lesarènes point com boo duggee ci lesarènes point com di nga fa fekk ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 mu sol ab blouson bi tàllal ay mu mel ni Abou Ndour moom la nga xamante ne wax na ko mooy Balla Gaye déposé na certificat médical fële nga xamante ni moom moo di CNG combat ak ki nga xamante ne nag moom moo di Eumeu Sène combat ba dañ koy hypothéqué maanaam xaar fan la wànnante mujjee ak ay gëtam ci la combat ndax yaakaar naa ne le 30 juillet boobule combat dootul mën a am mu ngi war a ci saison mën a am ci mille vingt 2024. ñu des ba léegi rek ci journal suñu lamb bi ak saison bi ñu nekk mu mel ni bëre bi nga xamante ni moom mooy lutte sans frappe bi équipe nationale bi ñi ngi wane seen bopp bu baax a baax a baax moo tax ñu daal di dagg bi dem fële nga xamante ni moom moo di Singapour ordinateur ak ñetti mbër yi nga xamante ni ñoom ñoo ko accompagner ñetti membre ci CNG ñoom ñëpp dem nañ fële nga xamante ni moom moo di Singapour ñu des ba léegi rek ci les comme ak mbër yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci lutte sans frappe bi di wane seen bopp di yéeg ndànk-ndànk gannaaw bañ fi gisee ku mel ni rëg-rëg ñoom Franc ñoom Serigne Ndiaye numéro 2 nag ñoom fi ak ñoom Ngor Ñaax ñoom Doudou Sané ñoom ñëpp ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax ci li nga xamante ni instant bi moom moo di lutte simple bi waaye nañu wane seen bopp tamit ci lutte simple bi noonu la amee ci ñoom ñoo xamante ni ña ngay wane seen bopp ci lutte avec frappe ku mel ni Serigne Ndiaye numéro 2 mi ngi wane boppam ku mel ni Doudou Sané mi ngi boppam ku mel ni nga xamante ne moom moo di Franc wane na boppam bu baax a baax ku mel ni rëg-rëg wane na boppam bu baax a baax ba jël place ci lutte avec frappe bi ñu jeexal foofu noonu ñëw ci journal bi nga xamante ne moom moo di journalu sunu làmb bu ñu ñëwee ci journal sunu làmb dañ fay fekkaat Balla Gaye numéro de mu mel ni journal bi. moo ngi ñu dëggal ni combat ak ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène moom dàq nañ ko combat boobu moom mënatul a am le trente juillet gannaaw ba nga xamante ni Balla Gaye numéro 2 déposé na certificat médical bu war a tolloog ñaari semaines yoo xamante ne daal benn activité du ko mën a def day toog noppalu Abdoulaye Dembélé mu ngi xamal ne Balla Gaye numéro 2 mënut bëre fii ak 30 juillet ñu des ba léegi rek ci combat bi nga xamante ne war naa am le 13 août war a dox ci diggante Baye Mandione ak ki nga xamante ne moom moo di Bébé Diène combat ba régularisé nañ ko moo tax ki nga xamante ne moom mooy di bàkkan def ab jàngat bu am am solo ci ki nga xamante ne moom moo di Baye Mandione di ñu wax ne daal moom am na lu tolloog 30 combat ci 30 combat yooyu noonu am na ci 14 défaites am ci quatorze victoire am nag li nga xamante ne moom moo di deux sans verdict mu mel ni Baye Mandione joue gros contre Bébé Diène le treize août ndax quatorze victoire yooyu moom Baye Mandione mu ngi daan surumle daan Langsaane daan Modou Awa Babacar Diallo Pape Sène daan Cheikh Ngiraan daan Yaram Gueye Maam Góor Diouf daan Bazoka Boy Kayre par deux fois Moussa Dioum Brusuli ak ki nga xamante ne moom moo di xoyantaan quatorze defe la am Jili Mbaye ko daan Mbaye Diouf daan ko Soulay Top daan ko Coly Faye xam ngeen ko daan ko Cech daan ko Modou Lo daan ko Gris Bordeaux daan ko Papa Sow daan ko Boy Niang daan ko Baboy daan ko Les 2 daan ko Modou Anta daan ko Zarko daan ko Bébé Saloum moo ko mujjee daan mu ne mu am combat sans verdict digganteem ak Gris Bordeaux am combat nul digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di King Kong. keneen kam koy séqal di bébé jën mu mel ne nag lii test bu mag a la muy première test ci ki nga xamante ni moom moo di bébé jën gannaaw ba mu nekkee ci lutte simple lutte simple bi wane ci boppam dugg ci lutte avec frappe bi bëreegul la tolloog neuf combats ci neuf combats yooyu noonu moom bébé jën am na ci sept victoire am la tolloog deux défaites ki nga xamante ne moom mooy njaaxum la daan daan ki nga xamante ne moom mooy lëz daan tamit ki nga xamante ne moom mooy Zarco 2 daan Lastander daan Tyson ngi neew daan Fourier daan gàkku 2 moom 2 defet yi mu am càndum 2 moom moo ko daan ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Gandigal ñu jóge ci combat boobu war am le 13 dugg ci yeneen combat yi nga xamante ne ñoo ngi koy xaar bii le 23 juillet la war am war a dox ci diggante Ahmed Dem ak ki nga xamante ne moom moo di Jam Téeri moom Ahmed Dem nag gannaaw ba mu waxee Jam Téeri tontu na ko neen daal ak lu mën a xew moom dina attaqué moom Jam Téeri neen dina attaqué tey pare na pour def lii nga xamante ne moom moo di bataille bi maanaam amul dara loo xamante daal dana ko moytu ci digganteem ak adversaire bi mu war a dajee le 23 juillet di ki nga xamante ne moom moo di Ahmed Deme kon nag ki nga xamante ne moom mooy Ahmed moom moo di jam ceeri bu Kayar mbëru daa bi moom pare na pour dem ci li nga xamante ne moom moo xare ki nga xamante ne nag gën nañ koo gis depuis combat ak ki nga xamante ne moom moo di Alioune Seye moom Issa Pouye nee na pare na pour daal di may loxo kii di Albouri Albouri xale rimbi rimbi boobu combat boobu kon Issa Pouye pare na pour tàllal ko loxo Sambay nag bu fekkee ñoom ñaar ñëpp pare nañ moom combat bi intéressé na ko pour mu daal di koy tëgg jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di amateurs yi Mor Diouf nar naa jox lu neex neex amateurs yi le 16 juillet moo tax mu nga ca waajtaay ba bu baax a baax a baax a baax combat ba war a dox ci diggante Abou Niassé ak Giro Seras ak yeneen neuf combat yoo xamante ne boo dàq sa moroom rek nga ni bii la journal samp na ab laaj fa nga xamante ne làmb dafa daan neexee ba dàq na yi nga xamante ne mooy am feneen muy Iba Mar Diop journal bu samp na ab laaj di ñu wax ndax Iba Mar Diop danañ ko tijji pour sauver journée yi nga xamante ni gars yi taxawal nañ ko ba pare forsa depuis bi mu amee combat ak léegi ku ne xam na ni dafa réer may kenn dégg ko kenn gisu ko fenn depuis combat am ak ki nga xamante ne moom moo di Franc moom ca jëlee defet keneen ka nga moom ñaar ñoo bokk écrit moom tamit journal bi nee na noonu la dal Forza rek moom moo ko dal muy Lac gannaaw bu mu amee combat ñàkk boobule combat muy digganteem ak Quench journal bi mi ngi wax ni moom tamit na Forza réere may moom Lac Rose noonu la réere may mayi mayi may mayi ka ko tëggoon tamit réer réerul may ndax ma nga fële nga ma ngay waajal ñetti fan après Korité wala boog tabaski fële nga xamante ne moom moo di Louga di Iliman Lo pour tëgg fa li nga xamante ne moom moo di ay combat ka daanoon Forza di Franc moom tamit mu ngay continuer di déglu rek ba xam gars yi ñen lañ koy proposé bu ko defee mu daal di leen mën a jël ak ñoom wane boppam bu baax a baax moom Forza journal bi wala boog moom Franc journal bi moo ñu wax lool ñu jeexal ci journal bi ak combat bi war a am le 30 le 20 mai door le 20 août incha allahu rabbi war a ci diggante jeex jàmm ak Diop numéro 2 mooy Diop 2 wala Fane Ndiaye moo ko tëgg mu waroon am samedi bi waroon am suba yàlla dogal nag lii muy dogal moo tax combat boobu uus nañ ko ba le 20 août incha allahu rabbi mel loolu lañ leen andiloon yi ngeen ñuy bàyyi xel lu tv point com ñu ngi leen di bëgg lu bare bare bare bare di leen jaare du nuyu waa Mbir Kilaan FM ah di nuyu tamit waa groupe Lutte TV tuuti ay Sarr Omzo bu Garga Serigne Ndiour bu Osod ah Mor Jaxate maa ngi lay bëggee bu baax a baax ah, bu bu bu Mbisaan di nuyu Daabu Jam Téri di nuyu Bada bu Serigne Ndiaye Bada bu Faas groupe Lutte TV yëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen ziare di nuyu tamit groupe xew-xew làmb ji ah ñoom Abdou taal bu xarañ loo ñoom Petit Max ah Cheikh saar Massar dem Demba Espagne ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee lu bëree bëri bëri ak Amdi Moustapha organe bu far bu jar. bëgg nañ leen lu bare bare bare waaye nag di ki nga xamante ni moom moo di moo njaay directeur série Madeleine doomu nday Lirou Diane di nuyu Ndoore tamit borom top 5 fitness top 5 musculation comme ni ma koy waxee rek parce que caaro yi terrain Ndiaye koy bégg bu baax a baax a baax ko ziare di nuyu Baye Pël ah ak Fëgala ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégg bu baax a baax a baax di leen ziare di nuyu Mansour Kassé di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Mafal ah di di nuyu Mor di nuyu eh, ki nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy euh, Papa Ndiaye borom dënd yi maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di ko ziare di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi